fukki fan juróom ci weeru gàmm di alxemes gaynde ga ñëw di yem fukki fan juróom ci weeru gàmm di alxemes gaynde ga ñëw karoog la Seex Bamba mu mag ma faatu ma mbala ay safaatu an malaatu bis bam gane àdduna dal di takku la Bamba xam ne am na lam doon sakku fekkoon na Seex Bamba di ñaan buur yàlla jàmbaar ju askano ci Mbàkke Balla yoor yoor la juddo alxames wa poroxaan yoor yoor di alxames la tabbi fil jinaan bis ba takku ser baatam Seex Bamba damu jëkkante koog baayam ba karat wa moomoon antana Seex Bamba sa ñaan nga nungu na kile yor yan naa ne sooy donoy rasulullahi mooy sam aliw mbaa omar billahi su doon muusa mu dim aaroona seeni mbir ak yooyele mbir nuroona nee na alluwa jam doon jànge lafa taxaw ci di rëy di fag danaa ko sooy aamiru may waasiru sooy xut bu may xaw su tama sooru fekkoon bambay jàng saaru xasasi ba ca fa arsil umma i la ko gisee seet bamba daal di dem fa nekk maam faati jàngal ko ba sabitul mun jijaati cër ya ñaari cër bu nekk amu saar mu julli fay rakka saxal ko fataar roog la bamba sange mboolem cër ya mas la dox fi lu aram fa bar ya foofee la bamba toog bindal ko teere xaar perma bool xool ko ndey amuy seere foofee la bamba toog bindal ko teere xaar perma bool xool bool xool ko ndey amuy seere bisub kawaat wa kato ñu dégg sox yey tàkk kenn xamul fata waxtu wa muy tàkk la sox yey tàkk loola waral njàmbaar ga ma ko bëgg ca bamba naan ji dañu nan faalo serali may alfaanu maag rijaalu keroog la yàlla def ci sunu maam ceerno sopp fetel jiyaar ba moom ab xarnu ca takkusaan la sunu maam moor anta la xasu gonte poroxaan dib jant ñu daal di son sa kasa sa génn réew ma soxna sa daal koy yanu booleeg meew ma bu ñu demee jaa bakkun la ca xarte soo see ko falan ko ngente neloo suñu nopp lii may wax waruma waaye rasuulu sa wax nan ca ma baay baa ko jabal ko roog maam cerno ne ko su ngeen dundee ni fay xarnu guddi gu ñëw muy jàng tey wër néeg ba ba muy ayak bis géej ga wal ca néeg ba géej bu walee ci néeg ba sar ca ndox ya ba muy ayak bis kenn du xamee ndox ya di lee toxal maam Cerno ak Seex Bamba seeni mbir ndono ba fab di tànkam ba Seex Bamba ne fu ma taxaw balaa ngoon mu ne fa jaar di xancu mboor maw yoon ne su ma doon ab dëkk Cerno yoon jëm si ci man ku suubu tagoog bul wa baay baa ku tudde Cerno Ibrahima mooy sëriñam bu ndaw awa tafima ca Muhammad la njool ma daldi gàddaay ñibbi Kajoor sanc Pataar moo mat waay ba muy dem dafa listixaarlu ñu ne ko ñibbil ren Kajoor tam mbaarlu karoog la pencum poroxaan ma daanu maam faati jóob wopp sëriñ bakaanu ca mooma alla xaali ma mar anta ñibbi kajoor la joor duna mananta mboolem kajoor jiital ko def ko xaadi mu raw ko teew ak maadi mu boole kook seex anta ñi waani jox leen sëriñ jeng afisul mu am faam at baay ba dal koy laaji jébbal ko bamba si xadaaji bamba ko jàngal alxuraan ak xam liggéey la boole wan baam ndam bamba yor yar ko ci waxtu si xari mas la moom li waxtu kibari mas la juuyoog ndigalal seex bamba mas fanaan fu dul fa suuf fa darba buy dem mu yor satala gaag daramba ak teera baag daa ajadi saf laramba mosula juum ba tag bi nig maam faati ngir bëgga lekk mbaamu naan laa mosula fanaan al du gel daaraja day rafle tey yelwaani ba xëy am daraja ca yooya at la bamba ak maam cerno ak seex ma samba joob di dox ba warunu war nan kajoor ak baawal ngir bëgga am ñetti dërëm mbay jaambur war nañ Kajoor ak Bawol waa njaambur ngir bëgg ñetti dërëm bay jaambur ngir booba naar bu ñu naan Sariiful Asan moo ko bindal ab téere bor la ca yanu bu tudd ne ñu fatul faal ak raw du faay xil limaalatil jalaal ànd na noog ma samba jóob ba dem saam amuñu lul fukki xasa boole mbaam nee ñu doon na bàyyi seex mu di jigal moo ko joxan sëriñ ba loola ko jagal mbaam ma sëriñ ma samba sa la ko sëriñ tuuba sarax mu sekki ba ñu ba tollu néegi wajja fa fanaan sëriñ ba xatta wajja sëriñ wajja nga yor mbalaanum te nan di leen bi janti dina roog waa xàndan se bamba na ndax waxtu yi tàggoog ñoom jox leen balaan ma laaj ko day waral juum sëriñ ba tàggoo joxu leen balaan ma yaakaar ja tas maam cerno sant waayam Cheikh Bamba ne su ko joxoon balaan ma Cheikh Ibra Faati la yemal maqaama Cheikh Bamba ne su ko joxoon balaan ma Cheikh Ibra Faati la yemal maqaama mbaa mu yam ak seew rafaal makaama di ay kuréel bisub xiyaama mbaa mu mu yam ak seew ibra faal makaama di ay kuréel bisub xiyaama boobee ba tey maam cernu ibra faati mas la tagoog bamba fil la te lu am jox te lu mu xam te lu mu amul yéene ko baam te du ko laaj te lum ko laaj mu jox te lu mu soxla cerno faati faj ko jiwaay ma ne su la fa maqaamaam ak i lu dul bisum xiyaama jiwaay ma ne fu la xalam maqaamaam ak i ngëneelam bisum xiyaama déglul ma wax la ba bamba ak cerno del see pataar nit ña di ree di day no na seex bamba nu reetaan naa dun fay mbor bi dinaa ko yalwaan